liggéey bi nga xam ni moom la njabootuk El Hadj Babacar Kébé Ndiouga doon liggéey ci jumaay Tuubaa ju mag ji mu jëm ci soppi karo yi nga xam ne da doon tàng liggéey boobu àgg na lu ni mel nag sëriñ Maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke di xalif général des Mourides moom lay saytuloo liggéey bi moom moo ko leeral. Euh, doon xool doon seet fu mu toll. mu ngeen fàttalikoo ci fan yi fan yi ci gannaaw ñëwoon tàmbali liggéey bi wàllu karo yi ak Cheikh Mamadou Bachir booba njabootuk alaaji Babacar Kebe ñu koy wax Njugo Kebe alaaji Njugo Kebe raxamallaahu euh, ñoo amoon yéene euh, barke barkeelu ci liggéey bi ba jëloon karo yu takku jëbbaloon ko sëriñ bi euh, ñu jëmale ko ci jumaa ji kon boobaag léegi yaakaar naa matul sax ñaar fukki fan euh, mu mel ne liggéey bi sori na lool ndax euh, barab yi nga xam ne moo daan tàng te taalibe yi euh, ñu ñëwante ci taalibe yi lool mel na ne barab yooyu yëpp saafarawu na soowu bi ak gànnaar ak saalum penk bi moom ki woon nañ ko ba pare war nañ ko ba pare. mboolem kilifa yi nag sant nañu bu baax a baax njabootug El Hadji Babacar Kébé ci nii nga xam ne noonu la ñu àndeek mun Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides ci yéeneem ci jumaay Touba ju mag ji. ba liggéeyal ko lii nga xam ne Serigne Mbéko bu woon a defal boppam. Cheikh bu Cissé mi nga xam ne moo fi teewul famille El Hadji Ndiouga Kébé yëpp ma teg euh, cant gi turu fukki ci turu kilifa yëpp ma teg ko ci loxoom. Euh, ndax yitte ji ak pas bi euh, ak liggéey bi ni mu ni mu demee ak qualité bi ci ànd loolu yëpp wane na ne euh, maanaam seen yéene da cee feeñ rek loolu nag bettuñu waaye waaye loolu ak cant gu rëy la mu jóge ci kilifa yi ñu teg ko ci loxoom mu jottali ko ñëw mu jottali ko njabootu El Hadj Ndiouga waaye liggéey bi nga xam ne waa njabootu El Hadj bi def nañ ko fi muy karo yi eh, ajjuma yi yoromb rek da ngay gis ne nit ñi sant gi ni sant ak ñaan gi ni ñaanal eh, ñi nga xam ne ñoo ko fi def loolu rek jaroon na eh, def ko fi bu yàgg yàgg yàgg waaye da gis ne. dugg gi dugg ak akuk dal dox ndànk ba ba ba julli li nga xam ne moom la war a def wala ñi nga xam dañuy siyaare si siyaare si eh, defe ko niñ ko bëggee loolu loolu rek tiyaaba ji ci nekk kenn xamu nu toll. ci turu njabootu Allaaji Ndiouga Kébé gépp ak mboolem njabootu Allaaji Ndiouga Kébé góor ak jigéen ak mboolem ay soxnaam ak mboolem ay mbokkam cant koo xamante ne nii dañ koy yëkkati di ko jotal Cheikh Mouhamadul Mountakha. ci jëf ju rëy nga xamante ne nii da leen koo jëfloo ci liggéeyub Serigne Touba bi te mu wóor na leen ne loolu moom xam nañ ne lu neex seen waajur la xam nañ tamit lu koy dolli ay xéewal fa mu nekk la ak ay ngërëm loolu nag nee na buñ dañ ko defalee amuñu ak cantam xanaa ñaanal ko rek lañ man ñaanal ko suñu borom gën ko fee yàggal gën koo kattanal ba yéeneem rëy ji nga xamante ne ni am na ko ci liggéeyal maamam ju tedd ji nga xam ne moo ko fi nekkal suñu borom mottali yéene yooyu yëpp ñoom nag ni nga ko waxee kara yi allah gi njóge kebe moo ko fi bàyyi woon ñu jébbal ko sëriñ bi sëriñ bi tamit taamu jumaay Tuubaa ji ngir jëmee ko ci loolu nekk mbégte mu rëy ci ñoom karo yi ngeen jàkkaar lool Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides moo ko commandé ba bitim réew mu nekk karo yoo xamante nii moom it dañ ko fa yéene def ci jumaa ji. kon euh, euh, xool yi nga xam ne karo yi nga xam ne soxla nañ ko jumaa ji muy granit ak blanco carrara nga xam ne euh, moom amu ci woon sëriñ bi ci boppam moo ko fàggul boppam ñu andi ko mu ci biir jumaa ji dañ ko defar lu bitim réew andi ko. moom it euh, muy karo yu yu bari yoo xam ne moo ñuy may ñu defaraat lu bari ci biir jumaa ji euh, ci réparation yi. mu yeneen liggéey yoo xam ne sëriñ bi moom la fas yéene door ci bërëbu sell bii. boole ci ay wanag yoo xamante ni danañ ko def ci jàppukaay yi ba ci yeesalaat parasol yi nga xam ne ñoo nekkee ci esplanade yi ñu def ci yeneen parasol yoo xamante nii yu mucc ayib la doon liggéey yooyu nag ñu war a door ci jumaa ji kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk lu ni mel ci njiital sëriñ Maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou ànd na ak architecte bi ñu wër mboole barab yi. ak euh, lépp lu féetee ci wetu euh, Lamp Fall nga xam ne donc karo yooyu tamit dañoo xawoon yàqu. donc yooyu tam war bokk ci liggéey bi ñu war a yeesal euh, mu des euh, liggéey bi ñu war a yeesal tamit ci ci esplanade bi nga xam ni yenn karo yi granit bi ak blanco carrara yi dafa xawoon yàqu donc yooyu tamit nañ ko changer euh, mooy yi sëñ maam Thierno wax mooy dabaal bi sëñ bi def nga xam ni karo yi dikk na donc yooyu tamit buñ jullee incha allah nañ ko àggale. Euh, beneen tomb bi mooy liggéey bi fi euh, entrepreneur si so yoroon te daanaka depuis at ñu ngi ànd ak ñoom di saytu liggéey bi donc mu jëmoon ci ñaari soroor yi ak yenn liggéey yi fi desoon donc yooyu tamit daanaka ñu ngi ciy topp jom ay at euh, def nañ benn réunion dafa na weer war nañ di sawaat léegi pour que fii ak euh, diir bu gàtt am nañ yaakaar fii ak benn weer lépp lu leen desoon na si liggéey dinañ ko tënk ba nga xam ni ñoom mun nañ jébal mun nañ jébal liggéey boobu beneen tomb bi mu mujjoon mooy wàllu liggéey yi nga xam ni sëñ bi sumb na ko fii ñu war ko ñu war ko tàmbali mu jëm ci wàllu bloc sanitaire yi bloc sanitaire yi mooy wanag yi euh, wanag yi war a def ci euh, fi jàppukaay nekk tey donc euh, liñ ci liñ ci Cheikh Bassirou liggéey bi mooy ñu fexe ba xam ni wanag yooyu ñu méngoog bërëb bi ba nga xam ni euh, yañ doon gis ca Makka ak Medina ñu xaw a jege ñu xaw a jege yooyu donc yooyu niñ ko liggéeyee mooy que dañ ko suul ba nga xam ni wàllu jàppukaay yeeg wàllu wanag yi donc dañuy suulu donc xam ne daanaka kenn du leen gis donc boo fay dem da ngay wàcc donc ngir sutura gaak ngir euh, ngir warmaal ba bërëb bi euh, tamit daanaka équipe bu ingénieur yi ñoom ñëpp liggéey nañ ci euh, jébbal nañ ko sëñ bi xam naa bu sëñ bi joxe ndigal rek incha allah loolu tamit na bokk ci naal yi. parasol yi sëñ bi tamit da ko dafa def itam lool ndax tàngaay bi ci ci plateforme bi léegi ñu ngi ko cee xalaatal. xalaat boo xam ne daanaka dina nekk ay parasol yu mucc ayib eh, yoo xam ne daanaka day tëju di ubbeeku nga xam ne daanaka julli àjjuma ji donc dina dina dina yombal lu bëri par rapport ak naaj bi donc yooyu tamit ñu ngi ci eh, xalaat nañ ci bu baax am na ñoo xam ne eh, ñu ñu ngi ci étudier ak ñoom am nañ yaakaar ni fii ak lu gàtt incha allah nañ ko mu jébal sëñ bi pour que sëñ bi mun ci ci joxe ndigal. sëriñ bi nag na mu soññee woon ne liggéey bi bu mu laal suuf benn yoon loolee ci la nekk ci lépp loo xamante ni day gën a ñoŋal ndam li nga xam ni Cheikh Ahmadou Bamba am na ko ci lislaam